mbokki Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen ah di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di leen balu ak si weeru koor gi tey nag ki ngeen jàkkaar loolu yaakaar naa xam ngeen ko Siteu le phénomène le Tarkinda borom Lansar moom mooy futur adversaire u Papa Sow noonu la demee ah gis ngeen nag olof ne na yéen jàpp caa gën a wër yàgg mag du danga am talu bu ko waxee lii moo tax masque bi Siteu takk na benn teebe ah Siteu taalibe Bamba maa ngi lay béggee dellu de dellu bëggee di wax ni jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi lay bëggee Babacar. teebee da nga def Siteu taalibi Bamba wala du noonu. waaw am na teebee am na Seck Siteu yooyu yëpp am na fii. Hmm. kon tarkindaa yi tamit ñoom desuñu ginnaaw ci xeex bi de daa mel ni derrière Siteu tarkindaa yi tamit def nañ seen façon ut seen ay masque di ko joxe pour nit ñi di ko takk di sensibiliser. waaw loolu moom Eh, ndax yaakaar naa ne lu kenn mën ñaar moo ko dàq waaw waxuma la ak ñett waaw loolu daal laa ci wax waaw di mosaw nag ñëpp waaw. Eh, yow en tant que porteur de voix nit boo xam ne ñi dañ lay roy macha allah bëri mbooloo macha allah feebar mel ni dugg ci tur àddina bi ñëw Sénégal téye comme économie réew mi yëpp mu téye kenn dematul kenn dikkatul loolu en tant que tey nit buy dund ci réew mu mel nii noo ko gis ak loo siy wax. waa li mu ci wax mooy métti na métti na ba fu métti yem waaw mais yàlla ak suñu borom yàlla moom suñu borom moom moom noppi na quoi waaw lii man li ma ko mën a jàppee mooy musiba ak balaa laa ko teg waaw kon li nga xamante ne tey moo dal si ci kaw jaam yi dal ci kaw nit ñi métti na mais dafa kenn ku ci nekk rek ak fi sa gis-gis kenn ku ci nekk rek ak sa xalaat mais man de li ma si njëg a ñaan mooy yàlla na suñu borom saafara lépp jóge fi man loolu laa njëkk a wax waaw mais métti na ba fu métti yem waaw ndox doomu aadama yi nga xamante ne tey seen loxo jotul seen ginnaaw ñi nga xamante ne tey seen kàddu nekkul kàddu boo xamante ne mën na yegg fii tey ñu ngi fi nekk ci biir gox bi nekk ci biir banlieue bi tey di xaar loo xamante ne tey xamuñu fan lañ koy jëmale di xaar loo xamante ne tey xamuñu luñ koy saafara yooyu nga dugg ci kër goo xamante ne yow ay nit ñuy dund seeni waajur jur ay njaboot yoo xamante ne amul kenn amul benn xale bu góor boo xamante ne sax dina dem uti pour indi leen nga gis koo xamante ne tey day yëru ay njabootam ay njabootam toll ni ñu war a toll nekk ay jàmbaar nekk ay bañkat nekk ci benn kër nga tëj leen ci benn kër ne leen bu leen xëy bu leen def fenn fa lañuy ñuy jëlee lu ñuy dund fa la ñuy jëlee lu ñuy naan. est-ce que du feebar bi moo waral loolu. feebar bi xëy na tëj ñu tëj ñu moo waral loolu rek tëj ñu tëj doomu aadama yi xëy na moo waral loolu waaw te dafa am ñoo xamante ne moom yow bu ñu dee sax si ngor la dee waaw bu ñuy dee si jàmbaar la ñuy dee fulla moo leen di rey fayda moo leen di dundal waaw kon du ma ne feebar bi la mais xëy na téye bu nit ñi. waaw te amuñu leen luñ ko saafara loolu laa ko jàppe tey su ma la déggee nga mel ni kon maanaam téye bi dafa metti trop ñi nga xam ne bu ñu xos loolu duñu mën a lekk tey boo demee ci noonu daa mel ni am waaw loolu moo am loolu si jëm boppam loolu si jëm boppam moo am loolu dafa metti waaw ndax tey soo xoolee tey ñun ci banlieue bi lañ dëkk ñun fi lañ dëkk fii la ñuy dund ñu jëflante doomu adama yi ci lépp lu baax comprendre mais ñun duñu daw doomu aadama duñu daw kenn lu ñu mën moom la ñuy dund ñu ah, xamal ni ah ñun suñu tool yegul fii mais ñun suñ la waxoo ñun lu ñuy def ñun ñi nga xam ne duñu dara rek bu ñu xooxoon lu ñuy social lu ñuy dund comprendre nga bàyyi àdduna waxuma laa koo xamante ne yow leer na ko leer yàlla ne yow bu mësee denc sax cinquante mille wax yu dajoo noppi na ci moom comprendre yow ñuy dund ci biir gox bi yow nga bëgg leen a tëj ki nga xamante ne heure bi nga ko jox balaa mooy yow bay jóge ci baane bay xëy daanaka heure ba jeex na bu doon la mu yor mu yem ci moom mu astu su ko paasee ñëw dem liggéey ak moom bu ñëwee tey bu nit xanaa boo koy tëj sax wala nga ne ko toogal fii donc waaw danga koy da nga am si loo koy wér daa si loo koy bàyyi yaa ngi dégg ndi si jëm ba man loolu laa gëm sama àdduna mais tey banlieue bi yee sonn nañu sonn bi ñu sonn nag sonn ñu ngir non dañoo sonn ngir wax non dañoo sonn ngir dañuy tilim non non yee dañoo ngir ñoom dañoo bugg di amal seen bopp te mënuñu jógal seen bopp mënuñu dem fenn ndax dañ leen téye foo xamante ni dafa métti dafa métti comprendre nga kon nañ defal man yërmande nañ xool lu gën a baax ci doomu aadama nañ xool na lañuy canaliser nit ñi yaa ngi dégg ñun suñu kilifa lu ñu gëm loolu la ñuy gëm ñoom lu ci loolu lañuy ñuy mais nag ñun ñàkk ñu xel am na lu xam waaw loolu laa mën a waxee waaw mu mel ne dund bi ñuy wax pour askan yow man nga ci soñ gouvernement bi ñu gën ci gaaw parce que am na ñoo xam ne dañ ne dund bi yéex na nañu gaaw parce que kuy sowee maanaam kuy dimbal ku soxla ndimbal da ngay gaaw ci moom par rapport ak ceeb bi ñoo wax ak diwlin yeeg yooyu dañ ko bëgg a jox nit ñi. waaw loolu da koy wax ñu koy gis da koy wax ñu koy gis si ñu koy jox ñooñu nga koy dem wax ñun ñoo koy bàyyi xel mais ñun si lu ñuy bàyyi xel ñun lu ñuy jàpp ne dafa yéex yaa ngi dégg mooy maanaam li nga xamante ne mooy buumu jaam yi mooy mu dog bu mu jàmm dafay nekk. noonu laa ko mën a xam nga bu mu jàmm bu noobul moo gën bu mu jàmm boo xamante ne tey yow bu mu jàmm xam nga tey boo nekkee si banlieue fi fi ma dëkk laa fii rek laa la mën a xayma ñun suñu gox bu ndaw bi fii dafa bari ay boo yoo xamante ne ay géant lañ ay ponkal lañ dañoo am doole dañoo am kàttan dañoo xam lu nekk am pexe bu nekk yaa ngi dégg yàlla suñu borom soppilante ne yow nii yow ñu bëgg leen a jël noot leen tii leen ci benn ruq boo xamante ne yow li ñu wax ne dëgg. yoo bëgg ñu ubbi xel yi yaa ngi dégg ubbi xel doomu aadama yi moo ñu gën ñun bu ñu noot luy déet nekkuñu yéen nekkuñu si laay ñu bari nekk noonu nekkuñu si loolu ñun dund ñu sax si loolu ñun ñëw dund yee si suñu yoon ñu dund ngir xamuma la ëllëg ñu bëgg a nekk référence ëllëg ñu bëgg a nekk ay nit ñu baax ëllëg nekk ay nit mais lii nii waxuma la lekk la naan de waxuma la loolu moo mujj mais lii day gën a yàq ay population lii day gën a yàq gox comprendre ndax ko amuloon xel bu ñaaw dafay ngay commencé am sa xel bu ñaaw man foofu laa gis man damay toog ay booy di waxtaan ak ñoom mais liñ may wax si lu ñaaw lu ñuy am xel ak fu ñu jëm ak pexe yi ñuy pare loolu dafa ñaaw te loolu kenn yéenewu ko kenn yaa ngi dégg man su ma la waxoon ñaata booy laay waxtaanal di soppi seen xel yaa ngi dégg dafa bari. kon loolu ñun suñu kilifa ñoo si war a jiitu waaw. loolu leer na xëy na kilifa yaa ngi dégg kon nañ def effort bàyyi ci li sët a wax xel parce que nag nit ki ku ko yeew ci benn place sax nga jox ko lu muy lekk ak lu muy dunde xar sax boo ko tënkee te joxoo ko mu lekk su yàggee defe naa est-ce que du wuyu ji boromam wala mu xaroo du nan la deme ah. waaw ah, xam nga man lekk yoon naan lay ba ñu dégg. waaw loolu loolu intéressant. ma si loolu man li ma gëm mooy li jëmal réew kanam yaa ngi dégg. suñu xel lu koy ubbi fii xam nga ñaata nit ñoo fi nekk ñoo xam ne suñu liggéey te ba léegi boo leen waxee barke alxuraan ñun ne billaay gisuñu lu ñu liggéey mais dañu loolu loolu loolu doy bu ma continuer ak yow euh, tey mbër nga nekk ci làmb ji di yëngatu ah macha nga waroon a bëre combat bu mag muy combat bi ëppoon coow ren ci saison bi yàlla daf ñu noo ko dund après. waaw sant yàlla rek yàlla moom kenn du xëccoog moom boo nekkee jaam moom da nga war a topp si ndigalu li nga xamante ne tey mooy gëm-gëm bi rek mooy yàlla suñu boroom li muy indi ci àdduna ngay sukkandiku ci loolu si loolu nga mën a sukkandiku gëm ci loolu man foofu laa ko teg waaw amuma si lenn lu mu metti mais combat balaa bëri ba dañ ci si keroog benn coow bu ci am sa diggante ak Papa Sow naan da ko dóor zone da nga ko am ñu bari ñu ci doon wax. loolu nag duma ma ci wax ndax xam nga du ma ci wax mooy dafa am si lu ma nekk dafa am si loo xamante ne tey di ñaan yàlla suñu borom li nga xamante ne muy balaa bu wàcc suñu kaw di si ñaan yàlla mu jële ko fi yaa ngi mais ay Papa Sow wala yem ci balaa bi. man daal man si si loolu laay wax ndax xamul tax nit ñi dañoo soxla dañoo soxla kàddu nit ñi dañoo bëgg a wax te mënuñu wax ñi dañoo bëgg a gis te gisuñu dara yaa ngi dégg gis nga ñun ñi nekk ci bale bi ñun ñooy lépp ñu mun naa laa ne ñun ñooy fond ku soxla dara si ñun ngay ñëw ku soxla dara si ñu ngay ñëw. dégg nga boo bëggee ñu gis la su ñun nee ñëw dégg nga te lépp luy mun di am ci àdduna ñun du ñu yëg ñun du ñu xam dégg nga mais ñun réew moo mooy dundee noonu réew moo sosoo noonu réew mooy doxee noonu ñun balaamewuñu loolu benn nit mënul wax ak àdduna ñun jéemuñ sax wax ak at ah, xam ma mais ñun lu ñuy wax mooy yee bu ñu fàtte ñun ay nit lañ ñun du ñu ay mala du ñu ay jën du ñu leneen ay doomu aadama lañ. état bi ngay waxal. non waxuma waxuma lu question état xam nga lu gën a garaaw ci wax mooy nit buy wax boo ko bëggee jëmale non ñun ñëpp la. waaw ñun ñëpp ñu war a xam nga ñun ñëpp bu ñu mànkoo jàppante ñun ñëpp bu ñu àndee ci dëgg état day. dégg yaa ngi dégg wax ji. waaw kon ñun ñëpp nañ jàppale état état nan lañ koy jàppale mu ñëpp nañ booloo nekk benn say dégg nga man aw ma maqaama di wax ak état non non man tollaguma foofu man fi may waxee mooy man sama njaboot laay protéger samay xarit laay protéger waaw waaw foofu lay waxee daal yi nga xam ne tamit ñoom dañ ne bu dara amee ñoom la ñu exposé affaire wér gi feebar yi ak sécurité bi police gendarmerie te ñëpp ñu ñu di ay mbokk ñooñu loo leen di wax comme encouragement wala noo gisee seen taxawaay ñuy faj ak sécurité bi. Ah, di leen wax ne ñun ñoom benn lañ rek ñun ñoom benn lañ buñ sumbee tën yi ñooy bokk ndey ñooy bokk baay ñooy bokk sant yi kon c'est la famille loolu waaw yërmande rek moo ci am waraam nañ jël fi daw si rek ko ci muy yërmande. waaw man loolu laa gëm waaw loolu laa leen conseillé di leen di leen di leen di leen di leen wax ne masa coono ñoom waaw ndax si lu ñu nekk yombul. nit ñi tamit tey parce que am na ñoo xam ne dañ ne nit ñi est-ce que ñu ne dañoo war a dellu ci yàlla ñi ne nàngam sàngam ñi ne nañ fuutaat xol yi yow boo amoon looy wax tey si doomu adama yi loo di wax. ah yàlla mu ko ci delloo wàcc nga di ndax moom mi la sàkk yaa ngi dégg yor la te di lay teg ci misaal chaque jour eh, boo ci delloowul tamit wàcc nga rek. waaw kon nañ delloo xel yi foofu rek yaa ngi dégg jël suñu xol yi naatal ko te bañ a xeeb kenn ñu bàyyi xeebaate xeebaate il faut ñu bàyyi bàyyi xeebaate ñu nawloo ku si nekk boo nawloo sa moroom rek day neex waaw. Euh, gis nañ bi feebar amee tamit say moroomu mbër ñoo xam ne yéen a bokk làmb ji ñu gis keroog Yékini Gris Bordeaux Modou Lo ñoom Tapha Tine Boy Niang ñoom ñëpp. rëg-rëg ñu ànd dem ministère de la santé yóbbu fa don bu bare bare bare pour jàppale ko population yi loolu gisuñu la ca ñëwu ca mais Siteu tamit ban gis-gis la am si loolu waaw ah, gisoolee ma ci mais dégg nga li la Gris Bordeaux wax waaw ah, Gris Bordeaux nee la Siteu def na ci loxoom waaw ah, kon man soxlawu ma may dem waa ñoom teewaay bi amul solo li am solo rek mooy ñooñ ñooy suñu kilifa te bu ñu woowee wax ñu ko ñun lu ñuy yëkkati suñu ñax donte dara la ñu yëkkati suñu ñax joxe ko waaw gar ñun lu ñoo bari jom de waaw dañu waaw mbër yi wax naa ko ngeen ne ko danaa ñoom ay patriote lañu. waaw dañoo bari jom man foofu laa teg sama àdduna waaw man ma ay feeñ wala ay affaire waaw mais lépp loo xamante ne yow sama loxo mu ngi ci dama ko ci def yaa ngi dégg loolu moom solo di nuyu suñu grand Gris Bordeaux di nuyu sama nijaay Yékini kooku sama nijaay la. Yaxya sama Yaxya Yaxya sama nijaay la. waaw dem nga laaj ko ku la ne sama nijaay la kay. kooku kay loolu jeex na. waaw te di koy ñaanal di koy baalu wax ak i morom mbiram waaw man de wér rek laa ko ñaan te xam naa bu ko yàlla may wér rek waaw dina baaxoo. seen bi tam la ma ci mën a cofar. CNG nag man aw ma maqaama boobu da ma xam-xam boobu. jaay de démissionné dégg naa yëg nii. waaw ah, moo gis loolu nit moom boo demee ba yëgatoo sa bopp si mbir bu la neexee nga démissionné loolu am nit am ci waaw am ci yaqin bu wér yaa ngi dégg li may wax rek mooy di ñaanal axlu làmb yëpp nekk benn ànd CNG am ndam mbëri am ndam promoteur yi am ndam man de loolu ma gën a. ngay jeexal mooy am na ñoo xam ne. dañuy siiw wala ñu xam leen ñu am na mu demee ñu dem ut fu level bu kawe maanaam fu garaaw ñu dëkki fa c'est à tey choisir ba tey des ak waa jàmm gën defar fi këram macha allah dëkk fi ak ñoom lan moo liyee lan moo waral loolu carrément. waaw li ma woon xel rek xam ne jàmm gën la am jàmm gën la dëkk waaw li mu njëkk am sama àdduna mu dem defar sama biir gox te wax fi sama kër ñëw dëkk. waaw su ma yeewoo yow samay famille yow samay mbokk samay am di jàmm loolu rek moo fi loolu rek moom damaa def li ma li ma war a def rek laa def na waaw loolu kese laa war a def ñu ñaan yàlla leneen loo xamante ne waaw sama xel fatu na ci te nit ñi di ko gis mu war ko def rek ñaan yàlla bis ñoom ma def ko. naka koor gi. ngi nii. metti na xanaa wala. man nag damay nelaw rek. damay sonn wooree. yii su ma woor damay mbër daa mel ni mu xiif de. non man moom ay xiif yooyu man damay toog même man bu nekkul làmb man sama lekk bariwul mais maanaam wor di wax fii yooyu man attanuma loolu dama ko attanul sax du keesu aw ma jotam ko attanul attanuma maama la mi nag abu ñu di la wax loo lii moom beneen affaire lañ maama moom ak abu ñaase moom waaw ñooñu moom maa leen di nuyu quoi samay famille lañ samay dara lañ sama xol lañ nekk waaw ak ki nga xamante ne kenn la ci man muy Fodé. Fodé ndeysaan ñu ngi la koy jaale waat. Eh, Fodé kooku kooku du ma ko fàtte kooku sama xol la eh, kooku sama xol la. mais bu dëgëre noonu lu koy indi relation bu xam ne du fa dëgër sincère. sincère rek lu sincère dañ doon toog lu muy gën a fàttali ci moom des fois dañ doon toog nit woo ma ni non dama bëgg dama la bëgg cité yow mu jël téléphone mun na ko yow moom da ngaa ëppal quoi yow da ngaa mun a bëgg cité bu gën ma ko bëgg man. foo la nii dama doon seet si sax di wane cofee la mun na koo defal ndànk rek waaw ndax fii la ëppee ñun ñuy ànd ak moom sax ñu la gën a bëgg waaw ñu ànd depuis ñu nekkee xale ñun ñëpp ñuy ànd solo tey yëre waaw muy neex muy métti ñuy ànd waaw ba tey. na ko yàlla jéggal ma bopp julli barke Seydina Muhammad. amiin kooku tiituma ci moom de wallaahi waaw sam bopp bi laa tiit waaw ñaan yàlla suñu borom waaw moo tax yéen kontaan ci yow.